salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Ibrahima ñu sama soppee sama xarit sëñ Xaadim Gueye maa ngi koy nuyu bu baax di ko fay ndaxte moom as sëriñ boo xamante ne ñépp la bëgg nit ku baax nit ku am ite nit ku bëgg nit ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla yàlla barkeel liggéey bi. barkeel njaboot bi ndaxte lii rek moo am solo lii rek moo am solo gis nga olof njaay mu ne olof njaay mu ne ñi tolloo bopp ñoom ñooy abalante ay maxande saa yu su nekk dama koy wax ci émission yi ñun maaraay yi ñun maaraay ne ñuy jàppalante suñu biir gën a rafetal gën rafetal suñu diggante ndaxte ñun ñoo ootewu ne ay ñaankat lañ kon nit yi bu ñu amee yaakaar di daw si ci ñun kon war nañoo rafetal war nañu rafetal suñu maanaam suñu diggante bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ci anam boo xamante ne yàlla mayul doomu aadama lépp su ma xamee siñ xaadim xamut naa ko xamal ci li ma xam siñ xaadim su xamee xaw ma na ma xamal ci li nga xamante ne moom la xam même su nekkee loolu sax munta am nit ku nekk bàyyi moromam tey ci moromam liggéey lu mu war a liggéey daq war sa xam ne li mu war a am ala kulli alin dina ko am bañ a xas nit bañ a yàq nit bañ a saboote nit parce que loolu amul njëriñ yàlla moom kese moom may yëkkati nit képp ku yàlla yëkkati doomu aadama mënu laa wàcce kon nañu xam loolu ñu ñaankat yi ñu xam ne nit ku nekk bésam a ngi ñëw mu bañ a yàkkamte bañ a dugg ci loo xamante ne moom su tëddee du nelaw ndaxte lii as tuuti ci loo xamante ne yàlla may na ko nit la. yàlla may na nit loo xamante ne moom moo ëpp lii nit mu ngi gis àdduna ak loolu sax wax dëgg fa yàlla ñaanut. kon yàlla su la ceralee yow nga toog di ñaan war nga xam ban makaama wala war nga xam ci yow li nga toog waroo nekk nit koo xamante ne ñaaw teef rek ngay wax nit yi parce que amul solo ñaanal ma du caaxaan de nit ki feebar xam ne hôpital mu ngi fi. xam ne yàlla moom moo ko sakk moom moo ko teg feebar boobu noonu mu ñaan yàlla dew si ci Ibrahima ne ko ne ñaanal ma ndax ma wer Ibrahima jël suuru ah lu mel ni jox ko Ibrahima moom moo joxe mais yàlla moom may faj mais yàlla def koy jaarale ci Ibrahima pour mun a faj aajo boobu pour mun ko woon ne man maa wax ne laa ilaaha illallah dara ne ko fi lu dul man kon man man maa nekk ci Ibrahima man maa nekk ci xaadim man maa nekk ci nangam ak nangam lépp loo jublu man la man yàlla man may doxal samay mbir kon ñaankat lu yàlla kon ñun ñaankat yi nañu gën a booloo ki na jàppalante suñu biir même su nekkul ne jàppalante wàllu xam-xam la nit ku nekk bàyyi moromam ci lu mu nekk mais jamono yi nit yi sax dem nañ ba bugg a weddi ñaan te ñaan lu am la waruñ ko weddi ñaan lu am la xanaa ku toogut ci wàllu xam-xamu maam yi mais ñaan lu am la dafa am parce que loo xamante ne sosuma ko Sëñ Xaadim sosu ko sama papa sosu ko sama maam sosu ko suñu jamono yonente yi ba tey da ngay gis wàllu ñaan kon ñu ñaankat yi ñaankat yu ndaw yi bu ñu ñëw tey rek jël wàllu ñaan nar ko saltel nar koo yàq xaataa doomu aadama xamul dara mënul dara mais ci li ngay ñaan yàlla boo rafetalee rek saay boo ñaanee yàlla yàlla def koy barkel mais buñ fi nekkee di saagante di wax leneen ak leneen amul njëriñ ndaxte sëñ xaadim nekk na li mu nekk ba ba pare Ibrahima tamit noonu kenn mënut a wañ kenn yàlla ñu yàlla dimbale. waaw sëñ Ibrahima rafet na kàddu yi rafet euh, euh, du benn. waaw sëriñ day faj mais yàlla mooy wéral. xanaa ñu ñëw rek euh, ci tënk ci li nga xamante ni moom la ñu waajaloon pour laaj la ko. ci sa wàllu liggéey. Mhm. ci euh, sa diggante tamit ak bani aadama yi. Mhm. waaw tomb bi ni njëkkee rek euh, di ko laaj muy wàllu kaaraange. ndax mhm. doomu aadama yu bëri ñoo xam ne dañuy tëb rek jublu ci wut. ak seen xel di nekk ci am. ak euh, te du ñu seen bopp. ñu doon laaj ci wàll kaaraange sa Ibrahima noo defee wàllu kaaraange. waaw si ñaadim alhamdulilahi rabbil alamin ndaxte jaam amul dara lu dul sant mooy nañ sant yàlla rek mais xam nga tali kenn mënul ci moom dara tali kenn mënul ci moom dara dangay am soxla doxi bàyyiwaat tali bi foofu noonu ah man boog ci li ma yaakaar ñu gis nit koo xamante ne mu ngi xeex ak tali utal ma cent onze xeer yoo xamante ne ci tali bi nga ko fore utal ma sungufu xay ut juróom-ñaari puso juróom-ñaari lamset juróom-ñaari guro yu xonq def ko def ko sangat nga sangoo ko juróom-ñaari fan képp ku mënul ci tali dara mënul ci yow dara képp ku mënul ci tali dara mënul ci yow dara day romb bàyyi xool bàyyi rek am na nit yoo xamante ne yàlla moo leen yaral seen bopp xool bàyyi rek sungufu ndoxam boobu mooy sama xarit dama ciy kontaan bu may wax njaxte amut ci fan na boy soxla te ndoxam mënu ko ndoxam am na nit yoo xamante ne foog nañ ne wàllu yàq rek la mën mais aka a mën bari ñu nekk séeréer di bay xam nañ ne ndoxum moom moo gën a rafet ci ñax yi yépp utal ma sungufu ndoxum nga utal ma juróom-ñaari mbott yi dee yoo xamante ne ci accident lañu ñu dee yoo xamante ne danga koy for ci tali bi nga xam ni mbott yi oto moom moo yéeg seen kaw nga utal ma juróom-ñaari mbott yu dee mm-hmm. juróom-ñaari puso yoo tàngal ak juróom-ñaari xal ak juróom-ñaari juróom-ñaari guro yu xonq ak juróom-ñaari lamset demale ne lamset kenn du ko téye nii di ko boxom puso noonu xal noonu sangul ma ko juróom-ñaari fan gasal nga suul nga ne maa ngi suul samay noon ba nit laat la lépp lu jógewul ci suñu borom mënul ci yow dara am na garab bu ñuy wax ci séeréer ne ngab akob mooy ñàmbi àll boo ko firndee ci olof ndaxte ñu ñi ay séeréer lañ mais maanaam boo gisee ñuy làkk olof sax mooy olof yi dégguñu séeréer mais séeréer yi dégg nañ olof mais su nekkul woon loolu suñu émission yi dañ koy xel di def ci séeréer ndaxte ay séeréer lañ séeréer mu ngi koy wax ne ngab akob olof di ko wax ne ñàmb àll boobu reen bi boo ko amee nga takkoo ko mais dangay jël dangay jël reen bi nga bottu ko nii dugal ci përëm mhm. mu mel ni jaaro nga takku ko musulaay a ngi noonu wàllu accident yi sax yàlla def la ciy musal mhm. nitu guddi yàlla def la ciy musal wàllu yàqu-yàqu bët ak làmmiñ moom bokkut lépp luy nit di wax ci yow tey ba suba day koy xool mënul ci yow dara maa ngi koy wax nag ci kattanu yàlla ndaxte yàlla maanaam mooy daj lépp ji moom moom moom lépp. voilà alhamdulilah. waaw Ibrahima wàllu kaaraange bi leer nañu jëmaat ci beneen tomb bi muy wàllu faj. waaw ndax sànq nee naa la nit dafay faj waaye yàlla mooy wér waaye wàllu faj man xam naa ne yàlla am na lu mu la ci may. waaw ndax euh, man ak yow xamante ne. <coughs> Mm-hmm. ñeneen ngay làqatu waaye man dooma làqatu. waaw xam loo ñuy wax ci wàllu faj. waaw wàllum faj moom Sëñ Xaadim wàllum faj damay wax ne képp ku soxol rafet saay boo jubloo ci wàllu faj saay boo ñaanee yàlla def koy nangu mais xoolal ki nga xamante ne mu ngi ak mettit xëy na bopp bu metti moo koy metti wala biir bu metti walla mettit daal ñëw ci yow yow xooloo xaalis bi mais yaa ngi xool ne sama mbokk bii moom mu ngi yëg loo xamante ne man mi toog yëguma ko saay boo amee xol bu rafet ci moom rek loo yëkkati suñu borom daf koy barkel daf koy barkel mais wàllum faj côté boobu duma ci sori ñi may jëflante ñoom xam nañ damay ñaan yàlla képp koo xamante ne aajoom narta faju yàlla bul xam Ibrahima képp ku aajoom nar tafaju yàlla nga xam Ibrahima mais yàlla mu ngi may sutural nag ba bi ma tàmbalee liggéey ba tey feebar bu ma nit munti andi ci àdduna am naa yaakaar ne su ma ñaan yàlla def koy nangu mm-hmm. waaw loolu moom maa ngi ciy sant yàlla bu baax waaw waaw loolu leer na loolu leer na ñu ñëwaat ci ñetteelu tomb bi muy wàllu ubbeeku mm-hmm. waaw ndax nit ki ndeysaan bëri na gaayam danoo tëju Mm-hmm. ci wàllu wërsëg lu laal mu dëgër lu yaakaar mu tas mm-hmm. seen xol du neex mm-hmm. ñi di ñii di gàddaay di génn dëkk bi di dem te loolu yëpp tëju tëju la wàllu ubbeeku loolu nga la ciy waxal Cheikh Ibrahima wàllu ubbeeku su nekkee nit koo xamante ne dafa tëju complètement lépp lu mu laal mu yàqu kon nit kooku day raxas nit kooku day raxas yaramam ba pare ndaxte ñaan yoon la nit ki nga xamante ne moom moo teju yow boo yëkkatee ay sunguf ubbeeku di ko jox yaakaar naa du ko jëriñ dara mais su raxasee yaram bi ba mu set su boobaa nag sungufu dimbale yaa ngi fi sungufu waswasoor yaa ngi fi sungufu timit timit yaa ngi fi sungufu beer yaa ngi fi ak garab bi ñuy wax ni seeyam ci séeréer séeréer yi xam nañ ko bii mooy seeyam boo koy sangu wax ne góor ak jigéen say leen ñëw ci man def ci xorom ak suukar ak parfum waxatuma mbirum ubbeeku mais nit yi dañ lay jublu mm-hmm. waaw séeréer garab nuñ koy li muy jëriñ rek la koy ooye mm-hmm. séeréer garab lu muy jirin rek lañ koy ooye moom moo tax séeréer su xamee garab rek liggéeyam day neex sungufu dimbali saay boo tëjoo utal sungufu dimbale ut lem jëndi leket bu bees sotti ko jaxase raxasal fii mu wàcc ci biir ndox mi nga raxas sa ndong bi galax ndi ko sotti ci biir sangoo ko juróom-ñaari fan sangoo ko juróom-ñaari fan nga xool ndimbale bi def lay dimbale garabu kàdd moom mooy saas ci séeréer boo koy sangu dangay am sens dangay am ubbeeku waswasoor moom wax dëgg wàlla kenn waxatu ko am na yeneen garab yoo xamante ni sax xam naa ko ci séeréer mais xaw ma seen tur ci olof waaw yoo xamante ne ñu ngi fi mais xaw ma seen tur ci olof mais beer mooy ari ci séeréer boobu yow mi nekk commerçant jëlal yow mi nekk utkat jëlal garabu beer sungufu beer boo ko amee boole kook xorom nga boole kook laurier boole kook cuuraay liban saay boo xëyee yow mi nekki jaaykat compal tuuti nga sotti ci sa àndamu saxaar nga xool ari mooy ati lépp loo soxla day ñëw yow mi uti jëlal sungufu beer nga boole ko xorom ak suukar ak parfum sangu ko nga xool ak ay xeetu ubbeeku yoo xamante ne lépp mënuma ko wax ci émission bi waaw Cheikh Ibrahima ñu ñëwaat ci ñeenteelu tomb bi hmm. muy wàllu ngóor hmm. waaw mooy kàttanu sëy ndax fi mu nii ñu bëri ñu ngi koy jàmbat am na ñu may yóbbante booy wax ak sëñ Ibrahima bul fàtte ngóor a ngóor ndax euh, bëri na sëy yëngu li ci hmm. bokk na ci ci wàllu ngóora hmm. waaw te ñu koy jàmbat ñu la doon laaj ci wàllu ngóora ma xam noo dafa wàllu ngóora boobu moom suñ xaadim képp ku koy weddi ñëwal ñam rek yaakaar naa ci tele laa nekk képp ku koy weddi ñëwal ma jël pot bi ma jox la ko ma ne ma ne la utiliser kon nii ak nii ak nii soo ci gisul li ma la wax dugal jat ci réseau yi nga wax ko waaw du ma fi nekk sax di wax nii nii nii nii mais képp ku koy weddi ñëwal ma jox la pot bi utilise ko soo ko gisul waxal sa aqulaa rek dugal ci réseau yi nga waxaat ko boobu bi ma ci yor doxul ci wàllu ngoor a kese siti daf koy dindi hémorroïde daf koy dindi dama ciy liggéey sax wax dëgg fa loo xamante ne sax mënuma ko wax nit ci sunguf boobu ndaxte wax naa la ne man sunguf ak reen rek waaw sunguf ak reen rek wàllu ngóor a moom wax dëgg fa yàlla sama wax du ci bari képp ku koy weddi daal ñëwal waaw mu ngi fi. comme sunguf bi euh, boo ko dee euh, mun na nekk parce que góor di nga war a préparer sa bopp avant ngay am soxna ndaxte suñu lëkk bi baaxatul kon avant ngay am soxna war nga préparer sa bopp ba yow. su boobaa saay boo amee soxna leneen ngay xel di tal ndaxte nit mënul di tal di daw dépasse di ko booleeg ay yeneen feebar yoo xamante ne wax dëgg fa yàlla musiba waaw képp ku nekk zone tamit mën nga ko utiliser waajal olof ñaay li muy wax ne daas fanaanan waaw mu ngi fi. waaw Ibrahima wàllu góor bi leer na te gars yi nga xam ne buñ ko déggee dañ kontaan. Hmm. ñu wax ci wàllu yi nga xamante ne tamit jigéen ñi ngi ma koy diis. Euh, nga xamante ni tamit dina faral di yëngal sëy ñu lay mm-hmm. xas ci fi ngay sëy buy wax mm-hmm. jigéen bu mën mënta am doom mm-hmm. ndax jigéen bu sëy ci kër am fa ay at amul takkandeer ñu koy léebu waale lu ne ñu koy wax metti na ci xol loo mën a jàppalee bani aadama yi wàlla jigéen ñi ci euh, mënta taxawaay la olof def taxawaay mooy mënta jigéen bu mënta am doom moom la doon laaj waaw si ñaadim xam nga lépp lu am am na lu ko waral jigéen jigéen bu munta am doom am na lu ko waral xaataa mu nekk liggéey bu bon boo xamante ni nit moo ko ko def wala mu nekk wàllu rab su nekkee wàllu rab soo ko ñaanalee ci wàllu rab soo ko joxee ay bagage daanaka su neexee yàlla dina am doom su nekkee liggéey boo xamante ne nit moo ko ko def faw nga tojal loolu ba pare door koo jox ay bagaas mais ci wàllum jigéen bu am jigéen bu amut doom sama papa mu ngi may dégg sama papa mu ngi may dégg waaw ndaxte nit ki booy wax ci moom ci nit koo xamante ne mu ngi dund waxal ci moom lu leer xam-xam boobu sama papa daf koy liggéey wàllu jigéen boo xamante ne mënut a am doom sama papa daf koy liggéey mais garab bii bii ne ñi ko xam ñi xam garab dégg ci reen yi lay jure ba ci kaw ñu ngi koy wax soto su nekkee séeréer mu ngi koy wax ne ndum baabut jigéen bu mënta am doom jëlal ma doom yi nga wolal ma ko sunguf boobu lépp lu mu nar a lekk na ci comp tuuti rek mu boole ko moom walla su naree ànd ak jakaram na ko booleeg meew mu naan ko su neexee yàlla dina am doom ñaareel bi mooy garab bu ñuy wax ci séeréer ne euh, ndakar ñiig olof di ko wax xom-xom jigéen bu munta am doom utal ma utal ma garabu xom-xom nga baxal ko ko boo ko baxalee jox ko ndox moom mu koy naan su neexee yàlla dina am doom soo defee yooyu yëpp gisoo ko ak yeneen xam-xam yi nga xamante ne kenn mënu ko wax ci émission mm-hmm. mais boo defee ñaar yooyu amut doom waxal jàkkar bi na dem faju ji ndoxum siti ndaxte góor mun na am ndoxum siti maniw bu muy génn du baax kon su boobaa doom du fa am mm-hmm. mais boo defee yii nii ci wàllu jigéen ki boo gisul résultat waxal góor ki na dem faju ndoxum siti ndaxte ñu ngi tooñ jigéen yi tooñ nekkul jigéen yi ndaxte taw moom mooy tax gàncax am mais asamaan su xiinee delluwaat yaakaar naa taw du am mais taw su baree ndox su yàggee gàncax am kon loolu noonu ñu ngi koy soñaat maanaam góor yi. képp koo xamante ne tamit yaa ngi yore soxna. amoo leen doom bul wax ne moom la demal nga faju ji yow ku góor ki moom tamit mu su fekkee ne faju na yàlla mun na leen a dimbale ngeen am doom. waaw kàddu yi wax dëgg yàlla rafet na leer na ñu continuer waat rek ci tomb bi muy wàllu nopp. Mhm. wàllu nopp ndax dañ koy soxla ci ñaar way dencante dox seen diggante. Mhm. waaw wàllu nopp daal. nga xamante ni ah nit ñi bëgg nañ ko lool. Mhm. tamit ku sañoon koo nekkal mu mu la bëgg la. Mhm. waaw loolu la loolu laa wàllu noob. waaw suñu xaadim wàllu noob jëlal sungufu noob rek <laughs> sungufu noob jël ko raxas raxas say loxo jàpp jàpp benn benn boole kook moom koo ko jox daf lay topp force mais wàllu fas duma ko wax ci télé. tu nangam ak nangam déedéet mais wàllu noob. jëlal sungufu noob rek après li des moom ñu ngi fi. waaw. <laughs> waaw Cheikh Ibrahima ñu ñëwaat ci tomb bi nga xamante ni rawatina nit ñu dañ ko soxla rawatina suñu mbokk yi nekk bitim réew. Hmm. nga xamante ni ñu bari bëgg nañ ñëw gis seen i wayjur gis seen i soxna gis seen i njaboot. Hmm. nga xamante am nañ doom seen ginnaaw mënuñoo ñëw ndax ñàkk kayit. Hmm. ah euh, ñoom ak ñi xam bëgg noo dem di am jafe-jafe kayit. loolu la laaj ci wàllu kayit. waaw si ñaadim côté boobu damay wax ni képp ku nekk orop yaa ngi amee problème mu kayit jéema la gëstu wàllu sarax agum parce que sarax mooy dimbale ñaankat nit ki nga xamante ne maanaam dafa teju moom moom na jéem a gëstu sarax su ko gëstoo rek buñ ko ñaanalee su neexee yàlla moom ni mu bëggee daf koy amee mais njugub képp ko xam njugub kay xam ne. wax dëgg fa yàlla moom su lonkee du bàyyi ah te moom nu ko neexee lay naawe séeréer di ko wax teem boppu njugub am na luñ ci liggéey su fekkee Sénégal nga nekk nga bëgg a tukki su neexee yàlla dinga tukki boo ñaanee visa duñ la rejeté boo fa nekkee tamit bëgg a ñib am na mbir yoo xamante ne ñu ngi ko ciy def su neexee yàlla di nga ñib si ñi nekk foofu amuñu kayit ndaxte lii réseau la lépp looy wax rek na nekk lu leer ñi ma jot a jëflanteel yàlla may na leen kayit alhamdulilah waaw. ah waa Ibrahima nag ñu ngi ci fu ñuy ndar keppee laaj yi. Hmm. ndax euh, benn moo ci des muy daj dëpp bi. benn bi nga xamante ni bëri na sëriñ yoo xamante ne sax da nga leen di jox avance ñu delloo avance. Mhm. comme ni bëri di delloo avance. <laughs> am na suñu mbokk sëriñ yoo xamante ne da nga leen di ñëw diis leen ko ñu delloo la avance bi ni la yóbbul kooku dugg ci dugg. Mhm. te yow man xam na nit ñi xam na ne am na lu la ci yàlla may. Mhm. muy wàllu rab ndax li muy yàq ci nit bari na. li muy sabab tamit ci yàq-yàq bari na. ñu doon laaj ci wàllu rab Cheikh Ibrahima. waaw si Xaadim nit ki daanaka buñ la laajee li nga xam da nga ciy sawar a tontu. wàllum rab rab baaxut rab baaxut ñu ngi wax ne am na ay jinni yu baax ay nangam ak nangam mais jinni ak nit dañoo bokkut dund bokkuñu dund ndaxte li tax yàlla suñu borom nëbbu leen feeñal ñu am na li tax kon ñun ak ñoom mënuñu ñoo bokk société boo xamante ne maanaam day nekk loo xamante ne ñun dañuy jëflante ak ñoom moom moo tax su ma déggee nit nit di wax ne maa ngeeg nangam ak jinne nanga ak nangam damay reetaan rek man de yoruma jinni man man Ibrahima yoruma jinne bugguma yor jinne tamit li tax loolu xam naa ko mooy jinni ak nit seen jëflante soriwul rokki mi rokki la jox ma lii ma jox la lee jinni këkku képp koo xamante ne xam nga ko xam nga ni alalam du ko may daf lay chantage duggal la rek ba nga dugg ci ruq bi mu commencé di wiire waaw jox ma lii jox ma lee jox ma lee moom moo tax ci képp ku mu nekk yow nga nekk xale bu jigéen wala nga nekk xale bu góor daf lay yàqal sa àdduna parce que dafa fiir fiiraange boobu noonu soo nekkee xale bu jigéen mu ngi ak yow bëggut yow nga am jàkkar bëggut yow nga am nit koy àndal sooy ànd ak nit sax problème yi dañuy bari xaataa même su fekkee ne yow meloo noonu sax moom moo lay xel di ruux maanaam di la jaxase pour sa diggante kooku noonu am problème am na ñi nekk ci néegu say tamit ñu ngi am problème nit yi ñu ngi foog ne nit moo leen liggéey wala nangam ak nangam fekki na rab yoo xamante ne ñu ngi ak ñoom ñoom ñoo leen di jaxase ndaxte yaakaar naa ne képp ku gis nit ba bëgg ko ba dugg ci moom nit kooku war nga mun a toog muñal ko war nga mun a jëflanteeg moom ci anam boo xamante ne anam bu rafet la mais donc gis nga ne suñu jamono yaay yi moom moo gënoon a metti te rarement nga gis couple yoo xamante ne ay problème la ñuy am mais suñu jamono bi sëy ñibb si léegi la kon am na cose am na lu ko waral ñun nag duñu wax ci mbirum jikko ndaxte nit ku nekk ak jikko bi nga jikkoo mais dañuy wax ci mbirum xam-xam rek mooy rab baaxut mais képp koo xamante ne mu ngi ak yow saay boo dikkee fii su neexee yàlla da ngay def lay bàyyi bii ni mooy ban bii nii mooy déemu bukki garab bi séeréer di ko wax ne ngiic moon utal ma reen bi nga jëndee ko xal dagg ci tuuti boole ko ak deru gaynde nga takkoo ko jour boobu nga tàggatoo ak rab dagal ma noppu mbaam bu dee nga boole ko reen bi ak deemu bukki bi takkoo ko jinni mënul ci mbaam dara jour boobu nga taggook moom yeneen xam-xam yi tamit wax dëgg yàlla temps bi mayuñu maanaam ñu nekk fii di ko wax waaw mais wàllu rab moom képp ku mu jàpp moom. wax dëgg fa yàlla boo dikkee mu bàyyi la. mooy euh, li ma bëgg a baaxee tamit maanaam clients yi mooy li nga xamante ne jamono yi képp ku nekk yaa ngi koy bàyyi xel mooy accident bi amoon. Euh, ñu la jël na leen. ñu ngi leen di ñaanal yàlla yonante bi sallallahu alayhi wa teeru leen. ñun ñii ñi nga xamante ne ñu ñoo fi desagum. te ala kulli alin dinañ dem yàlla yàlla yiixal suñu dem. jëlee ñu ci anam boo xamante ne anam bu gën a rafet la mais garab bi ñuy wax ci séeréer ne mucc mu ngi nii képp ku nekk séeréer xam nga ko mucc mu ngi nii mooy mucc mucc moom jeexal na wax bi dagg ci tuuti rek nga dugal sa poos wala nga oo ko takk ko da ngay xel di muccu rek waaw da xel di muccu rek mu ngi nii mag yi fooyewuñu garab sunguf ak reen ndaxte secret bi ci nekk ñoom xam nañ ko xam nga mbir mi yàlla moo ko téye mais yàlla ci biir nit yi ndaxte kenn xëyul ne man dinaa ndekki wala dinaa añ xëy noonu rek tëju sa néeg nga jox sa soxna de mu toogal la mais boo waxee ne yàlla yàlla rek xëy noonu rek tëdd nii doo ndekki doo añ ndaxte mosuñoo xëy gis boolu lekk yi di jóge ci kaw ci nit lay jaar kon loolu dañ ko war a leeral nit yi ñu ngi wax ne ñaankat yi du ñu yàlla du ñu yàlla nanga nga mag nit ku ne xam na ne ñaankat du yàlla waxoo ñaari baat ñaankat kii ñaan yow yàlla may ma Sëñ Xaadim am jàmm kooku day ñaan mais du force du ma wax force kenn mosul dëgg ci samay interview wala nga ñëw ci man ma ne la li ma lay ñaanal force day amee nii mais damay ñaan yàlla mais am na mbir yoo xamante ne yàlla du ko rejeté ndaxte bànk saa boo amut carte gàbb boo demee saay boo demee ci gab bi tamit di cuut cuut cuuc mënut tax nga génne xaalis mais boo dugalee carte nag dugaloo foos code saay boo dugalee li nga soxla day ñëw du génne kon mbirum yàlla noonu la mel boo ko jaaree fi nga ko war a jaar soo ko ñaanee daf lay mayu ndaxte moom ma ko wax ñaan ma ma may la nga sant ma ma dolli la mais mucc bi suñu mag yi fonkoon nañ ko lool ba kër boo duggoon amoon na ci bunt bi am na ci néeg yi xale yi tamit dañ koy takku mucc ñaareel bi mooy garab bu ñuy wax ci séeréer ndafar xaw ma ko ci olof boobu ko takkoo géej sax su neexee yàlla doo deewee ci géej ndafar waaw garab bu ñuy wax mbeelam ci séeréer mbeelam boo ko firndee ci olof mooy mbéj lépp lu la nar dal lu baaxul def koy mbéj mu dem mbeelam garab bu ñuy wax ne euh, maa ngi fàtte tur bi de ci olof mais xam naa ko ci séeréer waaw mooy garab bu ñuy wax mbaram mbaram garab boobu noonu boo ko takkoo tamit mbaram mbaram mooy faree ma faree ma faree ma daf lay xel di jàppale rek même am na mbir yoo xamante ne boo naree def choc su neexee yàlla oto boobu di nga xuloog apprenti bi ba wàcc mooy juyoo boo mooy garabu juyoo doo fekkee waaw dangay ñëw ñu ne la lii amoon na fi walla lii mais fekkee moom doo ko def. ñeer kàddu yi hmm. ak euh, sëñ Ibrahima hmm. euh, mi ngi féete euh, géejawaay hmm. képp koo xamante ni si bëggoon gis sëñ Ibrahima wala numéro boo xamante ni si dañ ko ci contacter pour maanaam fekki fi mu nekk yan tegtal ngay ko koo xamante ni soxla sëñ ñu ngi géejawaay marché Xelkom wetu wetu tableau Baye Diouf bi képp koo xamante ni yaa ngi fiy ñëw tamit Euh, da ngay jël repère rek ci tableau Baye Diouf bi saa boo wàccee incha allah su neexee yàlla dina la jël si numéro yi 77 la 832 82 36 numéro Tigo bi mooy 76 600 562 45 47 ñaari numéro yooyu daal mooy numéro yi nga xamante ne saa boo ci ootee incha allah su neexee yàlla di ngeen ñu jot.